أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع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 parce que man fi laa dëkkoon si côté arrêt baay bi nii su ma rombee yenn saa yi ma gis ko muy root ci pompe bi mën nuyoo dem muy na ma bu baax mais baax euh, baax gi mu baax ñëpp koy ba ci xale yi ndaw yi sax parce boo seetloo xale rek a fi taxaw parce que da leen manqué ndax xale moom xamul lu dul ki koy jëndal tàngal bu génnee mu ngi foog xale yi mu ngi leen di jëndal mu ngi kaf ak ñoom di reetaan baax daal lañ xam si moom. bi nga déggee bi ak par rapport seen cité bi insécurité bi mu am lan nga lan damaa tiit. wallaahi damaa tiit parce que man fii laa dëkkoon ci côté bi juste nii mais après damaa duggaat ci biir cité bi euh, te dama doon xëy 6 heures du matin ndax ragal sama morom yëpp 4 heures la ñuy xëy mais man 6 heures laa doon xëy sama borom kër bu fi nekkee daf may gunge wala sama doom bi te sama doom bi tamit magul mag yooyu mais bañ ma bëggee agressé fii laa arrêté dematuma démb affaire problème bi euh, rey bi fee na fekk si clinique bi nekk fii ci cité woo nii gën nga téléphone yi ngi sonné mais tiitaange sécurité daal nekkuñu sécurité suñuy doom yi nekkuñu sécurité fii yàqu na te pourtant yëmbal gi ñu baax fi dëkk fii ñu baax ñu correct ay liggéeykat ñoo fi dëkk mais ñaawtee fi ñu fiy def yëpp ay wàllu yaan lay doon ndax rey gii moom c'est la première fois ñu def ko dégg nañ fi agression dégg nañu fi sàcc lu nekk dégg nañ ko mais rey maa ngi koy doog a dégg fii suñu koñ ñun daanaka depuis 1996 euh, euh, lañ fi toog si jóge Pikine ñëw fii waaye maa ngi doog déew a dégg rey fii Jémbal lii gisuma ko gisuma ko ba ma ñëwee dama doon miir dem toog fee nit ñi démb li ñuy bëri yëpp damaa toog fii laa toog man xaw ma sax lu ma yëg damay dégg nit ñi di wax rek ma daw génn sama yaay ma foo jëm ma ne ko maa ngi ñëw daal di ñëw toog ndax tiitaange moo ma jàpp ndax nekkuñu sécurité suñuy doom yi nekkuñu sécurité fii lëndëm na lampe yi bëriwut suñuy doom yi ñu dañ leen defloo yoo xamante ni sax billaahi yow da ngay gis xale bu tuuti du am sax 10 ans ñu sexal ko morso ñoo xam ne dalay leer ñi dëkkuñu fi nga wax ñu daggal a saaga gis nga fii ma toog nii ay gais fii ma toog nii rek wallaahi mën naa bañ a nekk sax sécurité ndax dañu lay gis tey ne ah maire bi moo doon wax nangam naa ko def nangam boo jàllee sa fit bi du daal fii boo fi jàll nekkuñu daal ci sécurité pour te dire que nekkuñu ci sécurité waaw nekkuñu ci jàmm daal. mu mel ni ñi def agression beeg ñooñu yéen a ci même cité bi. non man ñooñu xawuma leen mais dama ne fii am nañu ñàng xawuma leen wax dëgg yàlla xawuma leen gisuma leen mais daal dégg naa ne dugg nañ fii tëb rendi ko yaayam bu du woon yaayam sax xanaa dina fi yàgg ba yàqu comme ni ko libaas waxee ni ñoom ñoo ñoo la mën a nettal mais man gisuma ko yëguma ko dama damaa ragal ba ma demee orange money bi bay ñëw sax ambulance mu ngi gaari fële ndax ñàkk fi am fuñ kër yi nga xamante ni seen borom bu buñ ko bëggatul nañ ko may am na ñu ko soxla wala ñu jaay ko wala ñu toj ko raser ko ñu xool lu luñ ko mën a def xale yi jàng si def ko ay daara mais tamit bàyyi nii kër yow nga dem tuxu feneen wacc nit tamit ci ay tabax ak nit ñi di tux di fi dugg wala xale yi di sàcc di fi dugg wala ñu leen di jaayloo feeraay lu nekk nga fiy gis fii lu nekk nga fi gis. ah solution mooy ñu jàppale ñu mairie ñu jàppale ñu jàppale ñëw di xam wàcc si terrain bi di xam li xew fii mais boo fi gisee maire tey balaa nga wala benn côté rek daf ko intéressé lay dugg dañoo war a dugg si fii di wàcc si terrain bi di xool dimbali suñu njaboot yi. da ngay yóbbu fu mu toll nii ku xëy da ngay jàpp sa loxo doom yóbbu ko ba école te amoo jot soo jaajee yaa ngi wàcc sama doom heure bi wala heure bi war naa taali xaama dem taali sama doom war naa ko jëli xaama dem jëli ci ko lépp ci ñàkk sécurité nañu jàppale nañu jàppale fii yokk lamp yi leer suñu mënee dimbalee ci ci am ay ay gardien fii ci koñ yi ñu dimbale ñu parce que amoon na ay jamono amoon nañ ay gardien mais jamono bi tolloon na foo xam ne métti na xeetu métti boo xamante ni nit ñi lu ñu lekk lañ tal amu doo yor sa benn cinquante mille ngay jënd caméra surveillance sa ceeb war la diwlin yàlla sa jàng école doom war la nga ne da ngay dem uti gardien te yeneen war la nga bëgg sa doom tamit doon quelqu'un ëllëg ah nga bëgg jël sa benn cinquante mille di ko def foofu nañ ñu dimbale nañ ñu gestu yëmbal gi te xam ne yëmbal fu baax la ay nit ñu baax ñoo fi dëkk nit ñu set nit ñu am ambition ñoo fi dëkk dañuy xëy di liggéey ji ñu fiy def yenn yi nag dañ naan bien vrai que yëmbal banlieue mais waa ville bi dañuy ñëw fii da ngay gis ñoo xam ne bu ne la ñii doomu diw la wala diw fe bërëb sàngam lañ dëkk doo ko gëm parce que lan doo leen foogee fii ñu ne yëmbal lañ dëkk fekk ñoom ñooy defkat yi mais du waa yëmbal waa yëmbal ay liggéeykat lañ ay daankat doole bëgg seen bopp ñoo fi nekk ñu set ñu civilisé nañu geesu fii xool banlieue bi xool surtout yëmbal nañu dugg si koñ yi di wàcc ci quartier yi Daaru Salaam sis lii fi am nii mosu fee am mosu fee am wallaahi ah xanaa di ñaax yaay yi comme man rek ñu koy téye seen doom man sama doom bu góor dem si guddi rek ci mujj yaay yow man mag laa am naa 18 ans damaa war a di génn ma ne ko doo génn fii li fi xew are baay bi ba ma fi dëkkee ñoom maa génn sama papa feebar ni minuit xale yu góor yi ñoom su ma demee dafa ko ma lekk ba pare minuit damay dem kër ga xale yi góor ñoo ma gunge ba sama kër ba mu dugg ba tëj sama appartement ñuy doog a wàññeeku su ma xëyee damay demaat suñu kër mais ñàkk sécurité moo tax damaa dugg ba ci cité bi fii ci biir jege sama suñu waa kër moo tax ma duggaat ci biir ndax ñàkk sécurité bi nekk fii ñun nag dinañ gën a téye suñu doom tiit nañ nag tiit nañ ba fu tiit yam fii ma toog nii sax damaa tiit wallaahi fii ma toog damaa tiit ndax fii li fi nekk neexuma la dama lay rey la neexuma la dama wala ma boole ak la moo fi nekk man nag teg nañ lépp ci loxo yàlla doo sekk ak ñoom dara da ngay yor lu ñu bëgg fi ma dëkk fi ma leen ni falaa dëkkoon am na ko xam dafa yóbbu doomam jàpp si loxo doomam man maa ngi xëy ay 8 heures may génn taseeg moom ma ne lu xew fi ñu dañ ko agressé pompe à gaz dañ ko def bëccëgu ndarkaam 8 bu du woon kiy jaay soos ci tali bi noonu juste bu du woon kiy jaay soos te nangoon nañ téléphone am dañuy nañu ko pompe gaz dem bay nangu tam li muy miiree noonu rek kiy jaay soos jóge foofu ne ko diw xam naa la bàyyi xale bi maa ngi jiitu ci saak bàyyil kii ne ko boo ko laa li nga xam mu daw dugg si ruq bi dem pour lan lépp ci ñàkk sécurité nañ ñu bàyyi ñu liggéey ñun ay jigéen lañ dañuy liggéey daan suñu doole euh, maire bi nañu dimbali. yu mel noonu dafay faral am di ngeen jug dem police dénoncé ko war. non fii police dafiy ñëw police dafiy dañoo xam gis nga démb ba fi policiers yi ñëwee taxawaalukat yu bari dool fi gis koo xam ne kii da nga koo ragaloon pour aw fi dootoo ko doo ko gis. parce que xam nañ ne tey police dafa police dafay xam heure police te ku ci jàpp ñaari waaw dañu fiy wàcc dañ fiy wàcc man sama doom fu mu toll nii bu 22h jotee ba 23h ki ma lay wax nii yenn saa yi moom may gunge dama naan ko doo génn gis nga bu watoo sax yenn watu yi mën ne ko dindi ko parce que da ngay gis da ngay ragal da ngay ragal tey jii police mën na ñëw ramasse ñi ñu war a ramasse duñu leen ramasse ñu war ta ramasse rek la ñuy ramasse nañ ñu jàppale dimbale ñu suñu njaboot yi tamit mënuñu leen jël di leen tënk mënuñu leen tëj ci kër yi ndax ay góor lañ